kii nga la. waaye booy taay Facebook bi booy mu ngi toj. man am naa onze Facebook onze. <laughs> yow nag booy yow rek ñu bëgg a yàpp. loolu la onze Facebook. fukki Facebook ak benn am naa ko Facebook bu nekk. léegi wax ma mot de passe yi. sama mot de passe. waaw. ah yow man ngay laaj mot de passe. waaw waxal. looy wax xoolal nga may jéem a të. baam moo la baal amul seen bu tudd moo la baal. amul amul amul yow man yow. yow saa yi waaw yow foo jàngee. kan yow jàngee ko. keneen laa jàngee. keneen laa jàngee.